asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi safoo di seetaan Prestige TV tey nag ñu ngi ci wàccaayu tabaski te buñ ne wàccaayu tabaski xel dem ci xar tey nag ñu ngi woon fii ci dalal bu nekk ci R100 pour fas yéene wax waxtaan ak jaaykat yi xool nan la ñuy préparer seen tabaski ba xam client yaa ngi ñëw waaw wala déedéet ba xam euh, ñi nga xam ne lépp loo xam ne seen xar yi war nañ koo jëfandikoo. ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykatu xar yi nan la ñuy préparer seen tabaski. Ah, ñu ngi koy waajtaal xar yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk moom waaye nag taxu koo bari de. client yi ñoom ñoo ñoo gun ba xarit dafa xaw a wax dëgg yàlla waaw xaw na cher ci kaw ah am nañu yaakaar de am nañu am nañu yaakaar de ah ñëw na ko de vraiment te xarit teel nañ ñëw moom xamoo ñu nag ci ginnaaw mais xarit ci kanam moom ñëw nañu non client yi moom des ndax xarit dañoo xaw a aju cher waaw ah cher bi xont moo tax ripaas ngooñ ngooñ saako 5000 francs ripaas saako 11500 bi kiite bi moom la xarit di lekk ngooñ ak ripaas la ñuy lekk kii de ripaas Mali bi ko ah corona bi di wax dëgg yàlla xaw na joué nag xaw na joué ci liggéey bi sincèrement ah xaalis amul dañoo toog ay ñetti weer ñeenti weer gars yi liggéeyuñ duñu mën a jën xar no xar client yi moom daañ ñëw mais xaalis moom moo des xaalis mi vraiment xaw na des ko quoi état bi wax dëgg yàlla xam nga corona bi xaw na joué ci affaire frontière yi ñuy xawoon tëj te am nañu yaakaar ne daañ tijji frontière yi buñ tijjee frontière xaalis daañ non xal moom dina am mais cher bi la ñuy wax dadul yom mais dina dina euh, dina dina cher moom mais yomb bi transport bi jafe na lekk bi jafe na te li ñu exiger oto yi ak li ak li ñuy wax ça fait deux oto yi fi ne da nga yeb say xar benn sàmm lañ ciy def te am ak camion xar ay cent xar ay deux cent xar nga yeb ko ci oto def ci benn sàmm wóorul waaw loolu moo tax ñu bëri aussi dañuy bëgg a xaar ba affaire bi jege ñu gën a ñëw frais bi moo bari heure heure bi léegi saako ngooñ cinq mille franc saako kiite onze mille cinq cent kooku boo ci indee cent xar foo jëm te njaay bi demagul ah loolu moom sans dépend de yàlla yàlla moom moo yor loolu affaire moom euh, affaire xar moom yàlla moo yor affaire boobu mais xaalis moom amul si réew mi sincèrement amul mi li may wax daal nit ñi ko am xaalis sa boo nga jënd xar yeew sa kër moo gën a wër waaw ñu ngi si préparation bi rek xar amagul de bareegul daal waaw xam naa yoon yi lañ ubbeegul rek waaw ah. ngooñ ripaas ak kiita mooy buy jóge Mali bi wa yoy lañuy dundé wa waaw seerul de aliment bi taxu ko seer non yépp wa day yok ko wàññeeku daal léeg-léeg mu dem ba 11000 ben sac bi quoi xari pour l'instant mom yombagul nee wa xamna gaay naa ñoo ñëwagul rek wa moy suñu gan yi waaw xam xam nga xar xar ci zone bi rek lay jóge ci zone bi rek lañuy ñuy jóge ñëw fii waaye benn jógewul frontière ak si fii waaw frontière yu ñu tëj moo bloqué bagage yi ba tax affaire yi mën da yomb ah corona bi de wax dëgg yàlla gars yu bari seen xaalis seey nañ ndax moment bi ñu toogee fi demuñu woon ci luuma bi dañ doon moment yi doon kii demuñu ci luuma yi loolu moo tardé suñu liggéey ndax somme bi nga yoroon yëpp day wàññeeku ndax demoo voyage yi jëndatoo jaayatoo loolu moo tardé liggéey bi waaw daaw heure bi ñu ngi doon dem di ñëw macha allah waaw ñu ngi doon dem di ñëw di yëngu macha allah daaw daaw waaw la gënoon dox ko ren waaw xam naa loolu tamit mi ngi si xam naa loolu tamit mi ngi si état bi xanaa di leen ñaax rek di leen wax ñu dimbali jaaykat yi xam ne affaire bi metti na yombul daal wax dëgg yàlla metti na trop ñu ngi jéem nag lu ñu mën waaye nag bu ñu jàppale woon tamit ñu jël waaw ñu ngi leen di xaar ci loolu daal ci tabaski bi. nekkoon ci préparation opération tabaski bi déjà entamé nañ ko sax donc euh, di nuyu euh, téléspectateurs yëpp yëpp di nuyu euh, mbokk éleveurs yi aussi ci seetaan bi ñuy seetaan waaw donc comme ni que éleveurs yëpp di waajee parce qu'en fait euh, bu tabaski jub jub donc euh, ñun nga xam ñoy éleveurs ñu don acteur de développement donc dañuy def euh, lu fexé impacté ci li nga xam ni suñu population soxla na ko muy xaru tabaski nako nonu lolo waralon day ñu def ay voyage feulé ci boori tambakunda dem wuti fa ay jour pour exposer ko population thiessoise yi donc dama naan jafeegul na parce que jusque jafeegul na donc euh, comme ni ko ministre bi waxee rek képp koo xam ni euh, sa gafa am na dara boo mënee teel a wut rek nga teel wut parce que teel a fagaru rek su ko defee nga xam ni euh, après yow même bu dee métti it yow doo ci yëg dara. waaw xaw na tàng tuuti parce que en fait même ci dëkk yi ci kaw liñ ko fa amee chair na donc moo tax bu yegsee ba fii tamit faaw mu cher. Cher Abi, peut-être que Diamoni Dunduni, parce qu'en fait, euh, on est en période de pandémie. Donc, euh, tu es aussi, euh, Gisne Ndeke Mnumdondeme, frontière, euh, tu es l'unique Ubi. Donc, on a connu nos gars qui ont été en Inehari. Préparation pour y accéder ci ville yi day xaw a donc moo tax ñun ñu amoon xelukat ni nañ leen dem fekk ji leen ah su ko defee ñu am accès ci njur quelques exposés population. Wa bokk na ci euh, d'abord dama ni pandémie bi ak euh, frontières yi ni tëjoon donc euh, mais déjà da nga nan heure bi da nga naan fekk dëkk bi fess del ak xar mais ren doo ba gis xar fenn donc loolu nono day xaw a xel mi repas, bi le soir le matin fan d'arachide le soir aliment dañuy faral di dundee. mbokk yi nag ñoo ko gisandoo day ci terrain bi la ñu wàccoon seeti éleveurs yi dem nañu dalal ba wax nañu seen i jafe-jafe ñu ñëw li ëpp ci seen i jafe-jafe mooy frontières yi ñu tëj nga xam ne nii dem beeg bi ci seen i jafe-jafe mooy nga xam ne frontières yi ñu tëj xar demul xar dikkul te loolu dina am impact bu mu def ci seen liggéey ci loolu nag ci lay jaaree di tàggatoog yéen di leen jox di daje seen beneen reportage